fas yéene ñëw ci téere sëñ alxaaji Mbàkke bi bi mu denc ci tomb yi sëñ Tuubaa daan tombal mag ñi ci xaaju fukkeel bi ak ñeent ci tomb téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn sëriñ Tuubaa xaada nee na alal yi ñëw ci ñoom ñetti xaaj lañ sawara suuf ndox alali sawara ku ko lekk lakk alali suuf ku ko lekk faatu alali ndox moom nee na dara nekku ci tomb téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar am na ko mos a jox sëriñ bi deru gaynde ba muy dellu sëriñ bi joxaat ko ko ne ko bañ reen bi moom lañ mën a jullee waxi sëriñ bi ci doomam yi tomb téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett sëriñ Touba nee na sama doom yi am na ci ñoo xam ne duma wax ci ñoom dara lu dul bisu pénc am na ci ñoo xam ne danaa wax ci ñoom tuuti mën nag jikko yónnante bi sallallahu taala alayhi wa laa yore te jikk yónnante bi sallallahu alayhi wa sallam nag kenn attanu ko moo tax ma séddale ko sama doom yii daal na muhammadul moustapha mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xarfan bi xarfin muhammadu faadal juboo gi ma juboo sama boroom ba lu ma ko wax mu def ko moo ko yore abdul ahad alquran laa ko jox daa dina man maay ilimaani ilimaan yi loolu mi ngi ci abdul xaadir lëggéeyloo gi ma gi may lëggéeyal jaam yi ngir jariñ leen loolu mi ngi ci saalihu téere yi ma daan taalif ngir xam la ci jaam yi ni ñuy jaamoo sunu boroom loolu mu ngi ci soybu arab bi tam fonk naa ko ngir yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam loolu mi ngi ci muhammadul murtada daa dina ñaar ñaar ñii laa ci wóoteel muy muhammadul amin ak muhammadul basir ndax muhammadul amin day mer te man duma mer te bu moree yàlla mer muhammadul basir nag moo yore gaalug àjjana gi te maamam àjjana kon juboo leen ak moom mu indi leen fii fi man waxi sëriñ bi ci sëriñ Abdul Ahad tomb téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent sëriñ bi nee na sëriñ Abdul Ahad damaa am ci moom yaakaar tomb téeméer ak juróom fukk sëriñ bi nee na ku man turu Abdul Ahad euh, nim sete du tàbbi sawara waxi sëriñ bi ci sëriñ Abdul Xaadir tomb téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn sëriñ bi nee na sëriñ Abdul Xaadir Jilaani moo sàkku ci moom ku ma ko tuddee ma tuddee ko sëriñ Abdul Xaadir waxi sëriñ bi ci sëriñ Saalix bu téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar sëriñ bi nee na sama doom la waxi sëriñ bi ci sëriñ Sohaybu tomb téeméer ak juróom sëriñ bi nee na sëriñ Sohaybu sama baay la waxi sëriñ bi ci sëriñ Muhammadul Murtada tomb téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent sëriñ bi nee na Murtada kuy guddub tànk la ci penk bi waxi sëriñ bi ci ku topp kooku ci ku ko topp tomb téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom sëriñ bi nee na ñi ànd ak man ñaar lañ ba ñett am na ñoo xam ne pàgguteef fu ma ma booleek ñoom am ci ñoo xam ne cosaan moo ma booleek ñoom ñii nga xam ne cosaan moo ma booleeg ñoom nag ñooy ñi nga xam ne ba sunu borom nee danaa la wàccee ci kaw suuf nga doon jëwriñu yonent bi sallallahu taala alayhi wa njëkk bind mbindeef yi la ma booleek ñoom ñoom it ban ñëwee jóguñu ca la ma bëgg benn yoon moo tax noppal nañ ma sagal nañ ma niñ ma noppale mooy yowmal xiyaamati du ma leen fóot ndax taquñu liñ ma sagale nag mooy yowmal xiyaamati ku fa gënu nit yaa fa gën ñii nga xam ne nag pàgguteef moo ma booleeg ñoom ñaari xaaj lañ ñi nga xam ne nag dañoo ñëw ci man bi wut lu baax te seen bët teggikuwu ca benn yoon bañ am ba bañ am ko ñoo ñii ci seen wàllu bopp noppal nañ ma waaye xaaj bu njëkk bi moo ma leen gënal beneen xaaj bi nag mooy ñi nga xam ne dañoo ñëw ci man ngir lu baax waaye dañoo xool leneen ba loola muur seen bët ñu topp ko ñooñu day bu ëllëgee li ma sunu borom may ci lay e, jël ndox ak saabu fóot leen ci ba ñu set tomb téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn sëriñ bi mas naa wax ca Jolof sëriñ Fadilu ak sëriñ ma Masamba ak sëriñ Mor Roqee Busa man mii duma bàyyi kenn man mii duma magi kenn man mii duma nijaayi kenn li ma yor day jaay ku jébbalu rek moo ko moom bu téeméer ak juróom-ñett ak juróom sëriñ bi nee na taalibe yi ñetti xaaj lañ ki aju ci man ñeenti xaaj lañ ki aju ci man di jaamu sunu borom di ma liggéeyal na ma ko bëggee kooku buy faatu di tàbbi àjjana te deesu ko isaab àdduna ak alaaxira ñaareel bi mooy ku aju ci man di jaamu sunu borom te du ma liggéeyal kooku ci fen wu la nekk ñeen ñetteel bi nag mooy ku aju ci man di ma liggéeyal te du jaamu sunu borom kooku danañ ko isaab ci àddina waaye defu ko isaab ëllëg ca yowmal xiyaam ñeenteel bi mooy ki aju ci man du ma lëggéeyal du jàmm sunu borom kooku jotewu maag moom dara àdduna ak alaxira waxi sëriñ bi ci maam Thierno tomb téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett sëriñ Tuubaa xaada lahu maxtaara lahu bi muy nekk gànnaar nee na kuy romb maam Thierno di ma fekk ci fii te wowuma la fi boo déggoon weneen wàllu yu feneen itam seeti ko tomb téeméer ak juróom ak juróom-ñeent sëriñ bi nee na ànd ak man de doy na waaye ànd ak maam Thierno moom ëpp na am na ñu ciy yokk ànd ak man ku ko def bu ëllëgee sunu borom dana la fay akub yonentam sallallahu alayhi wa sallam ak man mii ku ànd ak Thierno nag danañ la fay ma fay la tomb téeméer ak juróom-ñeent fukk sëriñ bi nee na Thierno xamal naa ko li ma xamoon booleeg li mu xamoon tomb téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn sëriñ bi nee na ko ni ma yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam soppe nga ma soppe moo tax loo bind mu am man nag lu ma xalaat ma am kon bul di bindati moo waral dawul bind waxi sëriñ bi ci maam Cheikh Anta tomb téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar sëriñ bi nee na dénkaane koo wóolu cer na laa wóolu dénk naa ko la ma doon dénkaane may ku la neex Cheikh Anta moo ma neex may naa ko la ma doon may jënd nag ku amee njëg Ibra moo amee njëg jënd na la ma doon jaay tomb téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett sëriñ bi mas na mas na koo diggal muy jàng nooru daari ni mu ne ko daa bari lool sëriñ bi ne ko wutal ku la koy jàngal nga di ko dégg tomb téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent sëriñ bi nee na ko ci def lu la neex ngay yéege ci yàlla walla ci ngay yegge ci yàlla waxi sëriñ bi ci sëriñ Masamba tomb téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom sëriñ bi nee na xasida yi ñoo sàkk fa sunu borom sëriñ Masamba di leen bind moo tax mu leen di bind waxi sëriñ bi ci sëriñ Mandumbe tomb téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn sëriñ bi nee na li ma sëriñ Mandumbe jox kenn joxaguma ko li ma Ibra Fall liggéeyal kenn it liggéeyalaguma ko waxi sëriñ bi ci Cheikh Ibra tomb téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar sëriñ bi mas nay waxtaan ak sëriñ Abdul Karim Touré ci maam Cheikh Ibra waxtaan wu yàgg te lu mu wax du ca dellu ba mu yàgg. mu teg euh, baaraamam ba ci bëtu ndeyjoor sëriñ Abdou Karim ne ko loo mën di gis dey Ibra Fall raw na mu tegaat baaraamam ba ci noppu ndeyjooram ne ko loo mën di dégg Ibra Fall raw na loolu la tëje waxtaan wa tomb téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett sëriñ Mbàkke bu sama su naa fekk sëriñ Tuubaa mu toog teg ñaari loxoom ci boppam di wax naan Ibra Fall day gërëm naa ko ba ko sëriñ bàkke bu sa laajee lu mu def mu ne ko damaa teg fa ma sama borom teg waxi sëriñ bi ci sëriñ Daru Asan Njaay tomb téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent sëriñ bi nee na Daru Asan Njaay mii day ku yeex mu dab la waxi sëriñ bi ci sëriñ Abdul Karim Touré tomb ñaar téeméer sëriñ bi nee na Jibrilu alayhi salaatu wasalaam buy ñëw fi man melow Abdul Karim Touré la yore ndax daa nuroog moom daa nuroog daxiyatul kalbiyu waxi sëriñ bi ci sëriñ ma sàmba Jóob Sàmm tomb ñaar téeméer ak benn sëriñ bi nee na bis sëriñ Masamba Jóob mboolem tiit yu ñuy wax bisu pénc bokkoo ci yow waxi sëriñ bi ci sëriñ Abdourahman Lo tomb ñaar téeméer ak ñaar sëriñ bi moo ko digaloon muy naafila alxuraan ci guddi gu nekk ñaari rakkaa tomb ñaar téeméer ak ñett sëriñ bi nee nañu moo ko faggaloon it kàttug ma kàttanug malaayika ak muccug suuf ak tabe ak ak tabe taw tomb ñaar téeméer ak ñeent sëriñ tubaa lahu maxtaara lahu nee na am na xéewal yu ñenn yor bu ca soxlawoon woon ñooña duñ ko gis waxi sëriñ bi ci sëriñ Balla Fally Dieng tomb ñaar téeméer ak juróom am na ko mas a ñëw ci sëriñ bi ne ko dama bëgg nga defar ma sëriñ bi ne ko defar taxoo la te fi mu ne mënatuma taxoo kenn daal di ne ko da ngay taxoo ku ma defar ne ko Balla Fally Dieng nii de defar naa ko kon loolu mooy li nga xam ne mooy waxtaanu fukkeel bi ak ñeent incha allahu bu ëllëgee jàmm denan ñëw ci waxtaanu fukkeel bi ak juróom tolloog page 57 tolloog tomb 206 muy ñaar téeméer ak juróom-benn wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh